mbokk internet yi ñoo ko gisandoo sëyu jigéen ci biir kër affaire yi nag doy na waar parce que bu ñu demee ba sëy ñii di soode seen jëkkër yi ñii ñu ngi dóor seen jabar yi di leen bu ndoxataal affaire bi nag doy waar trop. bu ñu demee ba góor ñi ah di am dut ci seen biir kër yi kon doy na waar. parce que yow boo takkee jabar mu lay ngay xalaat tamit soo ay soode di xalaat ay xëpp asib day daal di doy waar am na ci ñoo xamante ni tamit dund bu metti la ñuy dund ci jigéen ñi suñ seen góor jëkkër yi dañ leen di door di leen teg yenn bundu xataal yoo xamante ni am na ci jigéen ñoo xam sax bu ñu leen ko waxee dañ naan déedéet amul te loolu nag bu ñu demee ba ba di ko gis ci suñu biir war nañu xoolaat suñu bopp bëgg nag ñu xoolaat suñu bopp parce que affaire yi tamit doy na waar fii lay xewee nag El Vision nee naa leen loolu ku ci bëgg a ànd ak ñun rek da ngay jël suñu numéro nga woo ñu ci ci 77 271 43 01 waa ki leen koy présenté nag di seen xarit seen doomu nday Yacine Top wala ngeen jël suñu numéro bi di 33 834 26 60 nee naa ko nag du yomb te du ay fo tamit léegi affaire bi ci kan la ci góor ñi la wala ci jigéen ñi à bientôt du yàgg dara sur El